et salue l'indépendance de la justice. Mm-hmm. l'indépendance de la justice. je l'ai lu ce matin ci journaux yi. dégg naa également ku mel ne Kader Dia bi mu génnee démb euh, ci bureau procureur li mu wax mooy je fais confiance à la justice de mon pays. Fatou. Mm-hmm. Moustapha Diop faroo fa fee nga xam ni moo di wall Walfadjri daal di nay àddu jëmee ci jamono gi nga xam ni justice Sénégal gi ni mu daal di doxee ginnaaw bi nga xam ni bëri nañu bëri ñu daal leen teg loxo déglu leen ñi nga xam ni tamit dañ leen di déglu waaye teguñ leen loxo benn yoon mu gis ni saa su ne oyofal bi nga xam ni justice Sénégal def na ko ca ñoom loole mën nañ ne c'est la première fois mu am fii ci naqar lu ci mel saa su ci nguurub kii la di président Macky Sall gis nañ taxawaay bi nga xam ni noonee la daan def ba saa su ne képp koo xam ne yaa ngi doon dem mën nañ ne doo am yaakaar benn yoon dellusiwaat sa kër wala sa famille

amaana bu ñu la woowee ci lu jëm ci wàllum justice boo dikkee mën nañu dañ lay te bëriwaa ñu bëri ñi nga xam ni saa su ne dañ leen dañ leen daan téye ba pare ut li nga xam ni moom la def loolee moo ko war ci ay rôle yi nga xam ni acte ak li xam ni jamono guñ toll nii moom lañ gis mu ko daal def ba tax na Moustapha daal ak sa bu baax baax geste yi nga xam ni saa su ne am na ci justice Sénégal gu yees gi